صديق في حلمه فاروق في عدله عثماني في جوده وسخائه عليائي في علمه وشجاعته ذلكم أمير المؤمنين مولانا جلالة الملك محمد السادس من الله عليه بالصحة والعافية والنصر وطول العمر فباسم جميع الزوايا الصوفية في السنغال نتضرع إلى الله ونبتهل سائلين منه سبحانه وتعالى أن يبقي أمير المؤمنين ذخرا لهذه الأمة وحصنا منيعا للإسلام ومرفدا من رافد العلم والثقافة فمؤسسة محمد السادس في فاس المحروسة ومعهد تكوين الأئمة في مدينة الرباط المباركة وغيرها من المؤسسات العلمية والثقافية والخيرية والاقتصادية لخير دليل على حاجة هذه الأمة في بقاء أمير المؤمنين حيا معافا في بدنه ومؤمنا في سربه ففرع مؤسسة محمد بن السادس في السنغال برئاسة فضيلة الأستاذ سيد روحان بي من الله عليه بالصحة والعافية وجميع أعضائه هذا الفرع يأبى أن يكون متأخرا في إبداء تشكراته لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد بن السادس ولسان حال الفرع يقول فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك عظامي في قبرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه السلام عليكم ورحمة الله كان kenn ku ci nekk ñu ngi lay kontaan lool itam ci jotaay bi nga xam ni tey jotaayu alquran la waaye ñuy sant yàlla bu baax bi nga xamee ni wërsëgu toll nii jox nañu ko ndax itam am na ay bërëb yoo xam ne bérébu diine lañu al alquran daan fa jolli te amuñu wërsëgu mool nii ay bala nga fay tàkk fitna nga fa ba tal ñoo daje kon wërsëg bi wërsëgu am solo la may wax rek ni ci gàttal dañuy sant yàlla bu baax ci tawfiqam ak yërmandeem bi mu ñu tànnalee buur boo xam ni buur la nekk amirul muminin bàyyi ko ci quraysh quraysh dafa am lu ci xasan xasan ibnu thabit wax daf ni njombaxtanu kawe soo koy wut ak cosaan la dangay dem ci góor googu ñuy wax féer muy Quraysh mu Malik ci la bàyyi ko moom buur bii nga xam ne mooy Mawlana amirul muminin Muhammadin Sadis moo wax rek ni ci mag yàlla ak yërmandeem mu yankawal ñu ku mel noonu ma wax ni boo xoolee li nga xam ne tey mooy yëngutu ca Faas muy fondation Mohamed Sadis diyangutu ca Rabat muy institut bi nga xam ne ci la ñuy formé ñiy génn war a nekk imam bi ay boroomi xam-xam ak yeneen i institution yoo xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu xam-xam ak beneen wàll buy jariñ doomu aadama dama wax ni ñooñu day soo xoolee loolu di nga xam ni kon umma bi soxla nañu lool pour yàlla yàggal fi amirul muminin muhammadin sadis mu nekk cadeau boo xam ni kadoy umma bi la waaye it mu nekk tata joo xam ni day dal di aar li ñuy wax diine ji aaral ñu alquran ji nga xam ne tey moo ñu fi tax a daje yàlla na ko yàlla def mooy waliyu ahdam ak usral malika yépp nag di sant nag ci gàttal ñi nga xam ne tey ñoo jiitee fara bi ci Sénégal commencé ko ci Seydou Roxane Mbaye comme ni ñu ko waxee te sëriñ Abdou Khader Mbacke teewal ko fi mu wax ko sëñ Khouraychi waaye di sant itam professeur Mohamed njaay ak maam alfasi may sant képp koo xam ni bokk nga ci biir faraay bi nga xam jege nga wala sori nga mais xalifa nag mention spéciale la koy sante parce que wax dëgg yàlla wax naa ko ko fële ci Maroc. nee naa ko sayidul qawmi xaadimuhum nit ñi soo bëggee nekk seen sang da ngay jëkk nekk seen jaam te moom def na jaamam ci ñi nga xam ne kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk fii ci faraaj bi kon kooku itam wax dëgg yàlla ñu koy ñaanal yàlla bu baax baax di ñaanal ñëpp nag waaye di nuyu nit nak, abdourahman mahfoud di ko nuyu di ko yóbbante nuyoo mu yëkki ko yóbbu ñu ci kaw فمغنا كاوي خمتي سنغال حكومة وشعبا حكومة وشعبا لا يخ كان كوتشنا كيتشن يوم سوخول سابنا تلينغا خمني مملكة المغرب من كوي تخوي تيوالو الدين في تي سنغال اك افريك سنغال نك موي ماروك ماروكيت موي سنغال نجد بالمحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شكرا يا أستاذ عبد الرحمن لقد أبلغت وقبل أن أعطي الكلمة إذا نشكر أستاذ عبد الرحمن كنت بكلماته الواضحة ونيرة ونؤكد ما قام به من تقديم شكره إلى جميع الإخوة نؤكد شكره كذلك للشيخ خليفة لو نحن جميعا اتفقنا على كلمة واحدة ألا وهي تقديم شكر له هذا يعني أنه يستحق ذلك والشيخ الذي يتناول الكلمة فهو شيخ ومستشار وعالم هو الوسيط بين الفرع فرع السنغال وبين المؤسسة الأم منذ أن وصل إلى إلى السفارة المملكة المغربية في السنغال لم يضن بأي جهد في سبيل مساعدة الفرع وفي القيام بكل ما يحتاج إليه الفرع وفي التوصل بيننا وبين المؤسسة يا أستاذ نشكركم في ذلك شكرا جزيلا وندعو لك الخير والبركة واليمنى والسعادة والهناء ونحيل إليكم الكلمة بعون الله سبحانه وتعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر المبارك الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما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 إحياء مثل هذه المناسبات التي إن كانت تدل على شيء فإنما تدل على تشبت هذا الشعب الذي أحببته شخصيا أحببته كثيرا تشبته بالقرآن الكريم وبسنة سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين لا أخفيكم أني آه أني جد مسرور بوجودي معكم والله العظيم جد مسرور بوجودي معكم وأرعى هذا الأمر بإذن الله تعالى بإذن من أمير المؤمنين حفظه الله آه، هذا الأمر الذي آه، آه، يتعلق برعاية العلم والعلماء ورعاية أهل الله من من من حاملين لكتاب الله ومن العلم من المعلمين له فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه فإما عالما أو متعلما فهذا هو الفضل كله فهذا هو الفضل كله وجزاكم الله خيرا كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا الأمر جزاه الله خيرا آه، وبهذه المناسبة أشكر جميع علمائنا في فرع مؤسسة محمد السادس على ما يبذلونه من جهد وعلى هذه الدعوات المباركة في حق أمير المؤمنين مولانا مولانا مولانا محمد السادس حفظه الله ورعاه ليشهد بأن لأشهد بأن أمير المؤمنين ندعو له بظهر الغيب والله المغاربة في المغرب بالضبط الله يدعون له بظهر الغيب لطيبته ولرعايته لهذا الأمر هذه هذه الشهادة لله آه، وأنا وأنا أنا أنا ألتزم بهذه بهذه الشهادة وما سمعته من كلمات طيبة ودعوات صادقة في حق أمير المؤمنين إنما ينم عن صدق هذه العلاقة الطيبة التي تجمع بيننا وبين الشعب السنغالي والله علاقة طيبة ومتميزة ليست علاقات رسمية وإنما هي علاقات متجدرة في جذور في في جذور التاريخ متجدرة لقرون وهذا هو دأبنا الحمد لله هو أن نرعى هذه هذا الأمر بالنسبة للناشئة بالنسبة لأطفالنا أن نرعى هذا الأمر لكي يعلموا بأن العلاقات المغربية السنغالية هي علاقات رسمية ودبلوماسية وشعبية وروحية منذ منذ القدم وهذا ما يجعلني حين أتيت إلى هذا البلد الكريم أحس وأنني واحد منكم يشهد الله على هذا الكلام بأنني واحد منكم لا لم يعني لا لا, لا تستطيع لا أستطيع أن أعبر عن مدى فرحتي بهذا الشعب الطيب بهذا الشعب الذاكر لله بهذا الشعب المتدين أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، السلام عليكم monsieur euh, conseiller moom moo topp ci ambassadeur u Maroc fii ci Sénégal nee na ngi leen di bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di wone ni liggéey bi nga xamante ne ci lañuy taxaw muy alquran nit mënul am liggéey bu ëpp solo loolu ndax sunu borom bi subhanahu wa yonent bi sallallahu alayhi moo wax ni ci gën ci yéen mooy ki jàng alquran jàngale ko te yéen ci loolu ngeen nekk nee li ngeen seen yëg-yëg ci buur bi ak seen yéene ci moom ak seen wax ju rafet ak ñaan ji ngeen koy ñaanal loolu moom dafa sedd xolam da koy yëngal nee na yi tamit moom musul jàpp mukk ni ci senegal musul jàpp ni doxandeem la fi dafa jàppe boppam ni comme doomu Sénégal ànd ak yéen bokk yépp nee na diine gi nekk ci Sénégal ak fonk gi ñu fonke lislaam ak bonk yi ñu koy jëfandikoo nee na loolu bokk na ci li ko gën a yéem ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mbir mi nga xam ni ci la ñu nekk mooy fara bi ak yépp yàlla dugal ci loxoom jàpp lañu ba nga xam ni lii nga yéene ci section bi ak ci ay activités sunu borom bi di kon dina ko nangu nee na mi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di xamle ni mom doomu Sénégal la du du fi doxandeem wasalaamualeykum wa rahmatullah ak yu ande ni ak balaw waaw léegi euh, dañuy jox résultat yi mooy jëkk a résultat yi résultat yi su génnee ba pare ba nga xam li ñuy def pare na am na télégramme boo xam ni dañu ko yónnee buur bi pour wax ko dajale biñ ci dajale ak tamit jox ko can sunu cant bismillah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 عن أعضاء لجنة التحكيم وهذه اللجنة تكونت كل من السادة هؤلاء شير هميان رئيسا ومحمد مختار سلا عضوا وكذلك الشيخ محمد حبيب بي عضوا وكذلك الأمانة العامة التي تساعد هذه اللجنة على تقييم النتائج هم الشيخ مصطفى توري ومحمد آه، ساغون و ابراهيم لي saano ko wa niyabatan an haulai jamian nuqaddimu المكلف بتنظيم هذه الدورة ألا وهي المسابقة القرآنية والتي سيختار من هؤلاء المسابقين من يمثلون السنغال في المسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم وتجويده في المملكة المغربية الشقيقة فليتفضل أخونا آه، مام الفاسي ابن شيخنا عبد العزيز رحمه الله أن ينوب عنا بتبليغ جميع تحياتنا وتشكراتنا إلى كل من ساحب من قريب أو بعيد وإلى زعماء هذه الدول هذه الدولة السنغالية ومولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وبعد نعلن النتائج فقد جرت المسابقة على أحسن ما يرام لولا أن المسابقة لا تعترف إلا بالأوائل لقلنا كلكم ناجحون لا شك إذا قلنا الفائز الأول فمعنى أنكم كلكم فائزون ما هناك شقي أصحاب الجنة هم الفائزون نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة الذين هم الفائزون وكما تفضل مولانا أو الأول مع الله لأن الله هو الأول والآخر مع الله لأن الله هو الآخر شكر الله سعادة الدكتور محمد جاي ونشكر جميع أعضاء لجنة التنظيم والآن وقد تكونت هذه المسابقة إلى ثلاثة فروع الفرع الأول حفظ القرآن كاملا مع التجويد برواية وحش النافع والثاني حفظ القرآن كاملا مع التجويد بمختلف الروايات ثالثا حفظ خمسة أحزاب مع الأداء والتجويد إذا لا يسعنا في هذه اللحظة إلا أن نذكر الفائز الأول في كل فرع ونقول فيما يتعلق بالفرع الأول وهو حفظ القرآن كاملا مع التجويد برواية وش النافع المتسابق شيخ جوب حصل على ثلاثمائة واثنى عشر درجة فاصل خمسة المعدل مئة وسبعة فاصل خمسة والفرع الثاني حفظ مختلف الروايات الفائز الأول محمد الماهي توري حصل على 359 درجة أي ما يعادل 119 درجة فاصل 66 الفرع الثالث حفظ خمسة أجزاء مع التجويد والأداء وحسن الصوت الفائز الأول مام توري حصل على 164 درجة أي 54 فاصل 66 السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا إذا تلك هي النتائج léegi ngeen ko donc loolu mooy résultat yi nga xamante ni moo fi am sano du ma fedd li ma waxoon léegi ndax yaakaar naa ni leeroon na kenn rawul kenn nekkul kenn rawul ñëpp a tolloole ndax ñëpp ci biir yàlla la nekk rek te yàlla huwal awalu wal axiru naa ko sànq léegi mbir mi jeex na alhamdulilah li ci des mooy dafa am télégramme boo xam ni fara bi ak événement bi daf ko yónnee buuru Maroc ndax taxawaay bu rafet bi mu taxaw ndax jàppale bi muy jàppale fara bi taxaw bi mu taxaw ci lislaam bi ci dëkku jullit yépp rawatina nak deku Afrique ba tax mu créer ben fondation bu mag bu tudd fondation Mohammed Salis lil ulama et al afariqa fondation Mohammed VI pour les ulémas africains le qui boobu télégramme de félicitations et de remerciements sunu Mbok, khalifa lo moko wara jang ci mbolo mi su paré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 الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته وبركاته وبعد صاحب الجلالة فبوصفنا رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع السنغال يطيب لنا في هذه المناسبة الجميلة وفي هذا المقام العظيم مقام القرآن الكريم كتاب الله العزيز هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وفي حضرة أهل الله وصفوته الأخيار أن نرفع أسالة عن أنفسنا ونيابة عن كافة أعضاء المؤسسة هذه الأسطرة الذهبية الفواحة بأذكى أرج الشكر ورضوان والامتنان والعرفان إلى مقامكم العالي بالله هذا تنويها وتقديرا لمبادراتكم النفيسة وطموحاتكم الغالية وجهودكم المباركة المتواصلة في حفظ وصيانة الثوابت الدينية المشتركة بل وعنايتكم الفائقة بالقرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أضف إلى ذلك رعايتكم السامية لهذه المسابقة القرآنية جائزة محمد السادس في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وكذلك سعيكم الدؤوب في بناء كيان الأمة المسلمة في جميع ربوع العالم فجزاكم الله عن خدمة العلم والدين والأمة المسلمة خير الجزاء صاحب الجلالة نستسمح قبل الختام في إسداء وافر الشكر وجزيل الثناء للسفارة المغربية التي قامت كل القيام ماديا ومعنويا لإنجاح هذه المناسبة الخيرية العظيمة تنفيذا لأوامركم في توطيد الأواسر الدينية وروابط الأخوية والعلاقة الدبلوماسية بين السنغال والمملكة المغربية الشريفة قلل الله جميع مساعيها بالخير والنجاح والتوفيق وختاما نسأل الله أن يرعاكم ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم ويقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصنوكم البار الأمير مولاي الرشيد وجميع الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع قريب مجيب الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا بقلم البروفيسور روحان بي رئيس مؤسسة فرع السنغال للعلماء الأفارقة دكار بالتاريخ 29 يناير 2020 هجري ميلادي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا رسميا هذه البرقية يقدمها يسلمها الشيخ عبد القادر مكي إلى معالي المستشار لسفارة المملكة العربية السعودية الأستاذ عبد الرحمن محفوظ aquel que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 قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين sadaqallahul nga ñëw ki teewal ambassade bu Maroc jox la sa hadiya ak la ca ànd Cheikh Maam Alfa teg ko ci su ko defee ñu ndokkeel la bu baax ndokkeel si sëriñ daara ndokkeel itam xale yi ndax yéen ñëpp yéen am lii leen ñëpp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

الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بارك الله فيك بارك الله فيك شيخ عبد القادر مبكي جخلسة تبارك الله دبل نلي مجخلسة sa cadeau bi nga xam ni yàgg sa mbokk yu baax yële nga toogal yéen a ko bokk macha allah ay ci jëlal bismillah tabarakallahu boole ci loolu nga xam ni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 وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم kon ñu ñaan cheikh abdourahman kunta tabarakallahu mu jox ko kon nag shérif nga jël liste bi agalé xale yi ñu jox leen seen cadeau yi ndax timis ji dugg togal non professeur shérif man na toog ni wax mok mam alfa man nañ toog jox leen kon nak ñu bàyyi shérif mu agalé wo yenen xale yi nga xamni ñom ñëpp nañ mboolem lu nekk ci li ñuy am tabarakallah moo nekk ci lii su ko defee ngeen xam ne yéen ñëpp yéen a jiitu yéen ñëpp yéen gañe yal na yàlla barkee leen salaamaaleykum wa rahmatullah warsi warsi habibullah diop habibullah diop habibullahi diop شيخ مختار كبه ني نان مو حبيب الله جوب بسم الله اي تي خولال ني مو جيل لين كو تي توب محمد الامين جاي محمد الامين جاي نا جيغي سي كي تي توب الحاج عبد عبد الله جاي Mouhamad Lamine jaañ na ñëw Abdoulahi Dieng ñu ñaan docteur Mbacke Diouf mu ñëw joxal ñu ko kadoom Abdoulahi Dieng ana Abdoulahi ñu ñaan Thierno Ibrahima Ly mu ñëw joxal ñu ko kadoom ki Zeynal Abidin Kunta na jege si ñu ñaan oustaz Yaxya ñang mu ñëw joxal ñu ko cadeau oustaz Yaxya ku ci topp soxna Faat Njaay ñu ñaan soxna Mariyem soxna Mariyem mu ñëw jox ko barkeeloo ku ci topp soxna Mariam ku ci topp ndey jaara ngom soxna ndey jaara ngom ñu ñaan soxna Fatimatu Zahra moom it mu jege si am soxna Mariam nga jox ko soxna Mariam soxna Fatima nga jege si jox soxna nday jaara ngom ku ci topp Baye Dame Diop sëriñ Baye Dame Diop jëlal Mariam jox ñu ñaan sëriñ Babacar Gueye bu coordination des Tidianes mu ñëw joxal ñu ku ci topp jërëjëf Mouhamad Diop ñu ñaan sëriñ Babacar oustaz Babacar Fall bu Asfiya mu ñëw joxal ñu ko Gujarat. Xin vào các bạn vào. Gujarat. Soxna Ndeye Seynabou Ngom. Soxna Ndeye Seynabou Ngom. ñu ñaan ci jigéen ñi fi teewal sir fi kenn mu ñëw rek joxal jukko soxna day faatu jaaj ku ci topp Abdallah Alim Diallo ñu ñaan Cheikh Abdourahmane Touré mu ñëw jox ko ku ci topp Abdullah Alim Diallo ñu ñaan Cheikh Abdourahman mu ñëw jox ko ku ci topp soxna Faat Jaxate ñu ñaan suñu wayjur bu baax di suñu ustaas di borom xam-xam di bindkat muy ustaas Ndiir Saalix Ndiir jóge fii ci Yoof nekk feek ñun suba ba léegi mu ñëw joxal ñu ko ñu sant ko gërëm ko ci teewaayam ak taxawaayam ku ci topp abdul ahad muxtaar ja ñu ñaan shérif muxtaar si mu joxal ñu ko ñu sant ko gërëm ko moom mi doon coordonné liggéey bi ndax shérif mooy almushriful am ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla mu dolli ko kàttan yàlla dëgëral ko yàlla mottali yéeneem yàlla jàppale ko ci biir activité macha allah su ko defee kon loolu moo doon suñu jataay bi timis dugg si na euh, Cheikh nga joxe ñaan ñu tëje ko rek ah yeneen yi tabaarakallaahu hmm? ñu ni yii dañ ko doon jox ñi nekkoon ci taabal ji ci kaw waaw ñu bàyyi professeur Mamadou Ndiaye ku remb rek mu jox la par benn Cerno eh, eh, Ceerno Jibril xam oustaz Xamme mi ngi noonu oustaz Mamadou Ndiaye nga koy jox oustaz Mouhamadou say oustaz Habib Bey moom it ñu sant ko gërëm ko ndax mag la waaye wa jox na mbir mi yitte bu kawee kawe kawe yàlla yàlla fay ko yàlla guddal fanam maam Alpha ngeen gis leen ñu booleek seen yóbbante macha allah Cheikh Abdoul Aziz Touré Silla waaw ñu jox Silla kon Chérif mu téyel ko ko joxal maam Alpha كلمة الشكر لسيد مصطفى التوري واو ñu sant it sëriñ Moustapha Touré bu baax Ibrahima Ly ñu ñaan Chérif mu joxal ndox Ibrahima Ly Cheikh Sanoxo ñu ñaan rek Chérif jox la ko symboliquement oustaz oustaz Salih Lay ñu ñaan Chérif mu jox la kaamil boobu ñu def ko jox la ko symboliquement su ko defee kon nag yàlla yàlla dajale ñu fi déwén yàlla yàlla sóob ñu ci leeri alquran ba suñu rakk yi ak suñu doom yi bu ñu ñibbee yàlla sol leen leer yu bare bare bari yàlla yombal mokkal gi ca lu dugg yàlla bu mu génnaat yàlla gën a rafetal làmmiñ yi gën a rafetal dënn yi macha allah su ko defee kon ñu jox sëriñ yi rek ñu ñaan ñu yëkkati jataay bi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mu ni nañ jàng faatiha moom moom mi ngi noonu jël jël ci bu nekk mu ni ñuy jàng faatiha ak salaatul faatiha rabbul alamin kon mbokk yi fa tabarakallahu ngeen gis ko kon concours bi daat nay jeex macha allah ki nga xam ne moom moo jël première bi di Serigne Cheikh Diop sa Cheikh tabarakallahu ñu gannaaw bañ la ndokkeele ñaan yàlla ndam li yàlla na la jik yan kàddu ngay jotal gannaaw bi nga xam ne yàlla may na la ndam li alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al ambiya wal mursalin maa ngi sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo teewoon ci jotaay bi nga xam ne ci suba ba léegi la tàmbali jotaayu alquraanu karim ginnaaw loolu di sant euh, sama ñaari wajur ginnaaw bañ ma teete yóbbu ma ca daara jam xam lu téere bii di alquranu karim muy tedd nga euh, gu rëy rëy ginnaaw loolu ma sant itam euh, sëriñ daar bi nga xam ne moo ma jàngal alquran ginnaaw ndam li ngay gis fi yëpp daanaka ci moom la awee ndax su fekkoon ne jàngalu ma fi ma àgg nii tey du dootuma fàgg kon ma alhamdulilah ñu lay ñaanal ndam yàlla na jik ñu wax ne yow yaa war a dem teewal Maroc teewal Sénégal foofu ca Maroc incha allah nan nga koy waajalee ان شاء الله واج بو باخ رك اك نفر غودي نفر بيتك بو ديفه بانيا بانيا بانيا تايل بن يون بو ديفه بو بانيا تايل لك لب لو بغي تي درجه يال دانا كو ديفه واي سو تايل رك دانكا بو جالو رك سيو لا سيو لا الحمد لله جيري جيف كون يال يال نالا جيك فتبارك الله مو ملني تبارك الله دوزيام بي كيغا خامني مو مو جيل دوزيام تبارك الله زاوية مالك لين بعده تيو يالن جيتة كن يو نكنج محمد فاي تبارك الله يو مين هم نيا جيتة زاوية مالك نينك هم نموجل بريمير أكديزم يب نك إندلين ما أنا تبارك الله نن لان كتير الله بان كمان تان كتير ما نام لقي له بوري بخام نتين نك بياقلا بخام الحضر المالك ينك هم نخمن لينش القرآن أك القرآن جو سل جو رافيت ما شاء الله لول موم مم لقي له بخام دورنا نك بياق فريق نك ماي كمان سيدنيور te allah ci kanam dinañ gën a gis yeneen i fruits yi gën a ñor yii parce que lañ fa bàyyi xam nañ ni loole liñ maanaam taxawaay bi ñuy am tey ñooñu bu ñu ñëwoon ëllëg it dinañ mën a am taxawaay bu ko raw. kon ñu gën a góorgóorlu ñun ñëpp rek xam ne li ñu waxoon sànq rek la ñuy waxaat euh, jiitu tey ëllëg mën naa tax boo góorgóorluwul ëllëg doo jiitu. kon soo bëggee ëllëg nga gën a resté fa nga nekkoon da ngay effort bi nga def ba tax nga nekk ci kaw. effort boobu da ngay continuer defaat effort bu ko ëpp waaye nag ñu delluwaat rek di sant nag sëriñ daara yi nga xam ne nag ñoom ñoo jàngal xale yi ñoom ñoo leen taxaw ñoom ñoo leen toppatoo waaye ki ci jiitu nag di Cheikh Abdourahmane Touré di Cheikh Abdourahmane Touré nga xam ni liggéey ba nga xam ni moom la sëriñ Hadi Touré tàmbale woon ca fas liggéey boobu rek mooy liggéey boobu mooy li nga xam ne tey moom moo fruit moom moo feeñ tey ci biir xadara al malikiya kon ñoo ngi delluwaat di sant ñëpp di gërëm encore fois ñuy wax ni nag zawaaya yëpp ñoo gañee Sénégal moom moo gañee gañe alquran karim moom moo gañe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa eh, ñu wax ne yéen yéenay teewal euh, Sénégal ca Maroc euh, nag ngeen koy préparé incha allah maanaam euh, dañuy continuer rek dañuy continuer rek ci li ñu nekkoon te mooy continuer di gën a encadrer xale yi di leen gën a taxawu ñuy gën a waqaf di gën a ñu leen waajal daal ci fonction yi nga xamante ne ni concours noonu lay doxee incha allah dinañ leen ci waajal bu baax a baax ngir que buñ demee foofu it ndam li ñu yàlla may fii buñ demee foofu it yàlla may ñu ko foofu incha allah. jërëjëf kon ñu ndokkee leen félicité leen macha allah kon mu mel ni tabaarakallahu mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ jëlee woon fii. ci musaabaxatal quraaniya bi nga xam ne moom lañ doon def fi ci euh, euh, tabaarakallaahu ci centre bi waaye euh, ci Liberté 6 ngeen gis na kon ki nga xam ne moom moo jël première di Cheikh Diop Mouhamadul Mahi Touré moo jël deuxième Mame Abdoul Aziz Touré tabaarakallaahu moom moo jël troisième mu mel ni soxna sa yow ci concours bi nga bokkoon yalla dogal na sa naataango yi jàll lan nga leen di wax ak ak maanaam lan ngay encouragé ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci concours bi te jàll. may encouragé ñi gañe di leen ñaanal yàlla may leen ndam ndam li ñëw Sénégal di ñaanal ñi gañewul tam yàlla may leen ñu jël seen chance si yeneen concours yi ndax ñun ñëpp a mokkal képp ku ñëw fii rek dangaa wóolu sa bopp ba ñëw fii pour mokal kon affaire di chance kese la may ñaanal ñëpp ñi di yàlla def ñu génnee leen yàlla def ñu ñu dem indi ndam li Sénégal ndax bu ñu gañee rek mel na ni Sénégal moo gañe umma islam moo gañe waa ahlu Qur'an ñoo gañe jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon li nga xam ne euh, moom mooy leen ñu leen indiloon fii ci euh, euh, concours alxuraan bi kon ñu di leen tàgg ki nekkoon ci caméra bi nekkoon nekk nga xam mooy Cheikh Omar Diagne ñu sant ko gërëm ko ci àndoona yéen di seen mbokk Oustaz Babacar Niang wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu